asmalik yaay keenu diine singaari yow lanu wooloo asmalik yaay keenu diine singaari yow lanu wooloo jàkkaam yi fii ba ñu jóg amoon waaw de nañ la nuyu ba pare bañ doon la doon salaamaaleykum salaamaaleykum est-ce que est-ce que salaamaaleykum. su wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ bi ñu ngi lay ziyaare bu baax. di la ziyaare ci guddi àjjuma gi. di ñaan yàlla yit yàlla boole ñu fi bàyyi waaye bàyyil ñu la fi ñun ñëpp ñu ànd dund ba yaa xam li nga bëgg a dund ci sa biir xol ci ay at yal na la ko yàlla defal mu ànd ak wér ak wérle ànd ak mucc ak muccle ak mboolem say mébét yal na yàlla mottalil la ko ci barke Seydi Aboubacar Sy ci barke Cheikhul Hadji Malick yàlla mottali ko nag ala wajhil ardi mooy ci kaw suuf yan na ko yàlla def ah, liñ fi waxoon ci koor gi loolu la ñu yàlla saraxee ñu mën koo yeggali tey moo di sa njaboot lañ la indilaat ñii fi nekk ñëpp yaa leen tudd kenn nga ci tuddut mooy Abdoul Aziz Bale muy ma tuddee ko Cheikh El Hadj Abdoul Aziz moo tombe woon ak alaaji njoogu wàkk ba gaa ñu nga yóbbu woon ko sookoon bés boobu ñu ko doon jullee bés boobu moo doon tuddam moo tax ba nga yónnee it sa mbokk sa sëriñ suñu sëriñ Sidi Ahmed si Jamil moo ko tudd ak Cheikh Ahmed Male mu dendal moom it bés bi nga bési tabaski la lañ ko doon tudd bi ngay yegg ñëw nga sax ci tudd ma ndax boobu man maa nga màkkatal mukarram waaye bi nga yegsee fekk sëñ Sidi Ahmed benn tey bu Seydi Mouhamadul Moustapha Sy Jamil tudd ko nga ñaanal ko ko mel na ni yaa ko tudd rek ah, ñi ci des ñëpp yaa leen tudd fa tabaarakallaahu ñu ànd ak njaboot gi yëpp ak soxna yi soxna Aminata Diop mu nga nale waaw kañ kii mooy soxna Karimatu Diak Diak ñu ànd ak mu ñoom kii nag doomu sama xarit bi la Sidi Maxtaar Kunta waaw doomam la mu ñëw jógee France ñëw vacances ci ñun fa tabaarakallaahu kii Alioune Gaye sëtu Serigne Adama Gaye bu ñànga eddi mu ngi koy wax léegi ci yoon bi yendu na fii ba tàyyi da waxoon taalibeem yëpp itam ni leen fi sama taalibe na nga fi ñëw Ceerno Adama boobu am na benn kéemaan bu rëy bu mu def dafa am benn jigéen bu ñuy wax bu ñuy wax ah, eh, nan caamati dafa nekkoon ci beneen tariixa dikk nag doon ma ñaanloo ci menn mbir waaye daal sama xel xaw ca teey mm-hmm. ma delloo ko ñetti yoon bi ko ñeenteel na mu fekk ñuy def ñaan mu jël ñaan yi yëpp nag dog yi ñu doon def mu dem def ko ci soxla ba soxla ba faju mu dikk nag ni ma dëgg dëgg dëgg nag sëriñ Mor li ma doon wax yëpp du dëgg bi ma demee nag moo xool sama xam ma baadu góor gi dafa dafa xam ne waxuma dëgg moo tax mu ni ma delloo rek mu ni ma dama amoon benn bitik ñu bëgg koo nangu bisu altine bii bitig bi nag wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla daanaa si jaay sàngare hmm. waaye mën naa laa limal kilo fi bari yoo xam jënd ñu ko jënd si nañ ko fi ba tàyyi waaw moo ni ma ne ko nag ndax bëgguma xam seeni ayib hmm. mu ni ma nag euh, waaye bi ma dikkee fek ngeen ñaan dog yi ñu doon joxe ma dem ñaan ko ci suba ga bi ñuy dikkee ñu au lieu ñu bi ñi dolli ma 3 millions ma xam ne nag kon tijaan gi ngeen nekk dëgg la ma bëgg nag jël werd génn ci la ma neen ma ne ko ah werd bi day ku dikk di ko jël ak noo mën a mel ci mooy yàlla kenn sañu la ko tere ndax boo génnoon ci bés soro ba sax dikk ñaan ko kenn sañu la ko bañ a ndax feebar la rek te tariixa bi day faj moo tax lu nit mooy mën mooy yàlla ak gu mu làmboo ginnaaw nangu ne ashhadu an laa ilaaha illa la mu nekk su fekkee sàmmoo naa sar bi na ba moo tax tariixa bi do docteur la ñu jox ko kor bi ñu ko joxee ña mu nekk dañu ko dóor ba fa tabarakallah mu am nag benn mu am nag jëkkër mu di ma faral di tudd lool nag jëkkër ji ni mel ne kon dayo mii boo da nga faroog sëñ Moor <laughs> mu ne ko man nii ma mel ba nga gis ma bëgg ma nii sëñ Moor a tax ma mel noonu eh, mu ne ko boo ko tuddatee ma fase la mu ne ko nay tey waa nag sëñ Adama Gaye moom mooy sëriñam hmm. mu ànd ak moom nag dem ñaa fi mu dëkk doon ko siyaare ji mm-hmm. ah kii caam nu mu tudd am xale yi moo ñu toog seen kanam ci sa nag bi mu jëlee war dami nag ci ginnaaw suba si lañ ko may benn billet ma faas mu daal dem siyaare ji faas mm-hmm. bi muy dem nag ma ko nag kii ngay siyaare ji nag ba nga jaar rabaa ibnu arab saahi am na ci maqaama xutbaani si juróom-ñeenti at eh, dafa wax ne nag kuy siyaare Seydi Ahmad Tijaan romb ma te siyaare wuloo ma doo boo demee doo fa am dara boo ma siyaaree wax ma su nag boo demee da nga fekk mu faju ma ne ko nanga fa dem eh, ci ginnaaw suba sa nag bi mu demee mu dikk ni ma yàlla won na ma a bàmmeel boobu ni mu ni ci bu si dama ci yaan mu gëm tariixa bi lool bis bu ne mu def ci ay junni bi mu demee nag toog ak jooju sëñ aadama xool ko ne ko yow ku jox weer bi ah da ko yow de yow de jox weer bi mu ne ko sëriñ Moor Jóob mu ne ko waaw kay kooku sama xarit la te wax naa samay taalibe yëpp ñu di fa dem te waxu ko dara dafa toog moom rek wax ko loolu loolu nag waa ak ak la wane ndax waxu ko dara ci la ci la ci la ci la kii caam bi nekk euh, France léegi nu mu tudd kii caam maam faama caam maam faama caam la tudd fa mu nekk it noonu la gëmee tariixa bi eh, nit yàlla yi dañu doy waar sa lii wax itam daal na ma ci sëñ Abdou sëñ Abdou mu mag eh, njóogu waak moomu ànd nañu fanweeri at ak juróom eh, wax dëgg yàlla jaar nañ ci ay biiru yu bari ndax ma bëggoon nag bëggeen koo xam ne bu jéggi dayoo la ba boo xamee ni bëgg nga ma sax boo bu la gisee foog mu jox la xaalis mu ni nag sëñ Abdou moo ma jox werd waaye su ma fi jógee te mu nekk fi na ma taxaw su fi su nag yow laa bëgg nga taxaw ma defal ma lépp dundaat na fi ak sëñ Abdou ñeenti at soog a moom sa sa sëñ Abdou soog fi jógee ma dem fa nag benn bi fekk fa Abdou Abdou Abdou doomam mu ma mu ni ko dama bëgg nga sëñ mi may mi sëñ moor mi may la werd mu ko mani ko déet bàyyi ko mu seet ki ko doy ndax mën naa laa doy te duma ko doy te nag man may werd bi wax dëgg yàlla duma ko parapagaane mu ni mu ah ku doy sama bàyyi kat doy nga ma nag ma kon baax na waaye ñi mu àndal xam naa xeem nañu ci loolu ñoom dañu bëgg ko yóbbu ci sëñ Abdou ma jox ko ko mu ànd ak gaayam yooyu ca ginnaaw ëllëg sa dem si yaari sëñ Abdou ba mu ngi dund <coughs> ñu ne ko dangay ngay ñaanal fii werd mu baax a baax ñu ne foog nga ñaanal su ma dem taalal ko loxo sëñ Abdou xool ne ko ah, am nga werd duma laa waayaat werd te ko dara kon nag loolu wane na wilaayu sëñ Abdou <laughs> kon loolu rek laa ci bëggoon wax ndax tudd gi mu ko tudd njóogu wàkk boobu itam ba ma fa demee dama fekk sëñ Abdou mu toog ma ni ko nag man nag mbuy mi ma soloon summi naa ko ndax ginnaaw naaw suñu wajur sëñ baa ko si ak lagam ni ko li taxitam nag eh, loolu sëñ aadi Touré wax ni mboolem wàllu yi naw naa leen ci yàlla bu wér ginnaaw ba jaayante naa ak Seexu loolu sëñ Abdou wax sëñ waa di wax ma ne ko nag man yàlla di bind na ma boo di ko yàlla laa duma ko la ko weddil waaye nag du ma du ma ko gëm <laughs> ma ko ba tax na ma du ma weddil kenn dara ndax yàlla amul luwa day def lu ko neex ku moom lépp nag am lépp di def lu ko neex te moom yëfam te du tàggu kenn boo ne mayum defalul kii naam yaa ngi ñi ma yàlla kon nag yàlla yëf yi moom moom lépp ku ko neex tibb ci lépp maye ko eh, ma ko kon nag su mi naam bu mi ma sololoon ndax fu ma fekk dere si haaj maay wala sëñ baaba ko si man amatuma fa baat mu ni ma kenn du ko fi su tudd sude yow mi yaay def lépp te boo waa si ñu ko fa ma wax wax ma ni yaa ko jullee bi ma ko jullee ba noppi nag ma ko nag man de maa ngi lay sant di la gërëm sant ma la gërëm nag ngir ngir dama ko jullee ndax loolu sariya la ndax sa nit lu ne na ma diw jullee kooka dong ko war a jullee loolu sariya la topp gi ko topp nag moo ma kontaan loo ndax boo ko boo ko dindi woon damay xam ne sariya nga dindi ndax jàng naa ko mm-hmm. kon nag nun li ñu leen di nawe mooy topp charia waaye eh, ñu bàyyi baat yi ñuy woote yëpp ñu li ñu tariixa bi sant ak charia bi moo teg sa tànk fi ko yonent bi teg rek béye boo na nga gént béye boo nga bañ a gént ma ko nag loolu moo ma tax ndax boo amee sëriñ mu topp sunna te mën na topp aada yi da kontaan ma ni ko te Seydina Omar kera ba ñu ko jamee ba ba yaakaar day génn àdduna dañu ne ko sooy bu jullee te ba mu koy wax ñi yàlla waru àjjana ko sa Sadiq dong moo ci manqué ñëpp a nga fa woon waaye sooy bi nga xam ne romain la te bokkul ci ñooñee moom ko jullee mm-hmm. su ko defee kon damay taxawal sama bopp fa suway bu doonte moo ma gën moo gën waaye ma jël Omar teg ko fi Omar tëdd tëdd doonte Omar a ko gën loolu laa ko wax keroog ci julie googu waaye Omar ñu wàkk ma nag ku baax la woon guddi gu ne daan def julli salaat faati bi ñu ko falee dëkk bu mu ne jàng na fa julli salaat loolu nag dama ko lax ci kii ji rek ndax taxul woon a jóg waaye sa seen bi la am ñooñu kii nga tudd seen aadama kay doy sama wëlëre ñëw fii nag ak li muy ëpp dara ji ak lu muy gën ci yàlla yëpp teewul yendu ne fii ba tàyyi kontaan ci loolu ni waxtu ma duggee ci dëkk bi dinaa ñëw loolu la wax léegi ah, euh, mu tudd lii moom Mm, ci ci ci ci nu la ko am na benn baax nay bu ma def ci tariixa bi Ndey Njaay moo ko Ndey Njaay maaga baayam da doon xaritu Alaaji Mansour mu yóbbu sëñ Abdou Banda bi nag fii ci pom bi ni ko dama am sama benn xarit def bu defal benn band ci tariixa bi jox ma ko ma bëggoon nga nga déglu ko su ma soo ma ci digal ma di ko déglu sëñ Abdou dafa yónnee eh, cassette ci Way FM ga fii ci pam pom bi déglu bande bi ba mu jeex muy yónnee beneen bande sotti ko ni képp ku fi ñaanati weer nañ la jox bande bi moom sëñ Abdou loolu def na ko kon nag alhamdulilah rabil alamina eh, ñu ngi sant sëñ Serif mi ndax eh, képp ku yàlla def ngay Serif képp ku du Serif même bu ngeen yemoon garaati gàññee na la ndax deretu yonante bi loolu moom ku ko nekk yàlla la ko defal du lu ñu fàggu ndax dafa am wahabiya ak kasabiya wahabiya mooy lu yàlla may saanga doon ci dara kasabiya nag dang koy wuti yàlla may la ca lu ko neex yëpp yàllaa ko moom nag waaye lii da koy teg ci sabab waaye lii teg mu teg ko ci machine te ngeen baal ba àq nag Cherif nag suñu kóllëre yàgg na waaye ca dëgg-dëgg man de li ma fekkee gun ci ay waxam yëpp yu rafet lay doon nit nag euh, mënoo ni mënoo xam léppam waaye li ma dégg gun wax ko ci làmmañam day wax dëgg yàlla yëpp rafet lay doon nit nag mën naa juum mën naa fàtte mën naa waaye man li ma li ma dégg laa wax mm-hmm. kon nag te itam doyloo googu mooy doy doyloo te am ñi ma gën a ëpp xam-xam ëpp ma lépp waaye teewul ak loolu yëpp rek am na ci luñ kóolu si ak doyloo lool de maa ngi ko ci sant ndax bu nu dul dara it xëy na nit ñi baax ñi buñ la doyloo yàlla yéegale ci ñëw dama waxoon sama benn sëriñ rek bi may demee ni ko dama bëgg nga dimbali ma ci yàlla dama ko ba ma ko wax ne ko eh, fa haasa moorakum bil baabi yarju xiraakum min nawaalikum moo imaam fa tusxina fa tusxina fa tusxina abana bi sharaabi tahooril munhili jaani fa in lam aku ahlan lil ataaya fa ilhaaqun la min joodi salaami ma ni ko nag fa kam samban bi xasaar san raisan aaliyan misla sanaami ma ni ko te yow nekk yàlla defal na la loo xam ni képp ku dikk fi yow te bi muy dikk dafa ginnaawee ni geen bu génnee dina jiit di bopp te dina koy ni jeganu fa gëleem góor gi doon wax sëñoo daal bay bi moom boo leen sëñ Abdou la woon jàngale nañ ko sëñ Abdou ñaar fukki at juróom moom itam ku baax la woon kon nag yàlla daal defal na ma man day man baaxuma de sëñ Babacar Sy rek yaa yaakaar ni ginnaaw gëm naa ko rek yàlla dina ma suturaal waaye sama bopp daal li ma ci li ma ci yëg mooy bàyyi bàkkaar dong tey jéggalu yàlla nag mu suturaal nu ba suñu ay benn doomu aadama bañ ko xam loolu dong laay ñaan yàlla ak dee ci lislaam ak dee ci tariixa bi nag te nekk ci kër si Hadji Malick radiyallahu taala ak njabootam waaw sëriñ duñ la téye lu yàgg li ma wax léegi rek ñun ñoo la doyloo li sëriñ Cheikh ma Tidiane si almaktum daan wax ni yaa ma doy kenn mënu ci dara mu ne waaye tey ma doy la nag cooway bari rek doo doy kenn mu ne yaay sama sëriñ kenn mënu ci dara mu ne waaye tey ma doon sa sëriñ cooway bari rek waaye doo dëkk sëriñam mukk ñun nag ñoo la doyloo te li nga wax yàgg na kii fas yéene jël tarixa bi ci yow yaa ko tudd ba mu juddoo yaa ko tudd ndeyam yaa ko jox tarixa bi muy faama wadd bi mu génnee àddina yaa ko jullee moom mii yaa ko tudd te mu ngi ci ñaar fukki at ak ñett ci ren te suñ xamante jiitu na juddoom kon nag mu ngi bëgg a yàgg ku te lu yàgg rek dëgg la samedi bii weesu maa lay jëw ca conférence u Ayuba Fall gàmmukat maa ngi la fay jëw jëw bu rafet mooy li nga wax léegi ci Amadou Ale mbay ma ne leen Serigne Mor moom wax ci gémmiñam ne lépp lu ko sëriñ Amadou Ale Mbaye mos a wax ci kaw suuf teg na ci bët lim ko wax ci àllaaxira la tegagut bët te ñàkk faa dem moo ko moo moo tax mu wóor na ko ne tegagu ci bët ma ne leen waaye dem googu nag yenn na yéex fa tabaarakallaahu ma ne te tey fii ñu toog ku fi xam Amadou Ale Mbaye na xam na wax kenn waxul ma ne leen kon Sénégal li fiy nitu yàlla kenn xamul nu mu toll nañ bàyyi yàlla ak ki cëram. 78 78 man ak Serigne Mbaye Sakho ak Ndiaye Diallo Thioune Ndiaye Diallo guddi gu nekk daana jàng junni salaatul faatihi yaay jàll ci moomu jox nañu ko benn këyitu ayatu kursi ci biroom te ayatu kursi lu baax rek lañ ci xam waaye da ko xoole gumba dako ko xoole gumba bi muy tëj biroom daf ko làmbatu hmm? mu jëwal otoom ba kër sëñ Moustapha wax ko ko mooy yóbbal ko ci fajkat yi ba yi ni ñu tuddati hôpital Matlaboul moo wax ko mu ne ko ma sëñ bi nag du ma jóge fii mukk te gisuma wala boog ma toog fi rek waaye du ma dem fenn ci yow ba ma lëjëlee sëñ Moustapha ba def ni nii rek def te kanam moo gisaat <laughs> loolu de am am na ko ci moom moom moomu nag mooma jëkk yu ko 77. 77. yóbbu Màkka ba it dafa am fu mu jóge ndax dafa amoon benn problème bu rëy. boo xam ni ñem ko bokkaloon eh, fa tabaarakallaahu mm-hmm. mu njëkk ci njaay njaay njóogu wàkk ba moomu mm-hmm. mu di ko mu ah, ci sëñ moor mm-hmm. ma boole moom kere fa fekk xadim mi ngi yor mandat d'arrêt bi ci loxoom ma ne ko ah jàmp na de waaye barke sëñ ko si mën na lu ne bu pos-pos bi dëgëree ma jox ko la koy jox ba noppi ni ko demal ba sa nga def ko tëjëm bi mu demee nag ma ñeewante ko woowaat ko jox ko ne ko ne ko maa la garanti sëñ Babacar Si kenn du la mu ni ma ma ne ko maa la garanti sëñ Babacar Si kenn du la tëj man sax xawma ko wax loolu dama ko wax rek parce que dikkal na ma ma dem tëdd tuuti gis sëñ ko Si mu jóge ci benn jàkka dikk jox ma loxo ne ma mayit garanti naa ko kenn du ko tëj ma yee wax ko xadi mii ni ko xadi kaay seede sama digg sëñ baaw ko si suñu yaay ji àll coon wax naa ko lii te dara laa ci xamaloon dama doon làmbatu rek waaye sëñ baaw ko nee na ma kenn ko tëj neuf mu dellu si wee ma ne ko waaw noo def mu ne man daal damaa jox kii bi rek mu xotti ko ne ma dema sa yoon <laughs> allah waaw ah, wallaay ndeysaan bi ma joxe bi màkk bi ma ne ko jox ko sëriñ Maysa mooy sama ma wax wax wax ma ma dama ko nisar ba noppi ma ma ne ma bu déwénee naa ko jox ba bi ma ko wax yoon nettali Ibadan Siam ma ma jox billet bi ma jox ko sëriñ Maysa ba ca déwén sa nu ànd dem siyaare Faas ma ànd nu ànd moom bi demee jaar France ma ne ko man miy dugg France dafa mel lëndëm la ci lëndëm laa dugg dama bëgg bëgguma fee fanaan nu àll waa jëm faas bi ñu demee nag daje naa faak juróom-ñeenti mu xaddam yu naar ñu toog di waxtaan nag kenn ki ni ma euh, Sénégal day yàlla may na leen mayu rëy te nit yàlla yi bari nañu fa moo ma wax ni te rawaxaanu tariixa bi at mu benn yoon lay fanaan Maroc ji des yëpp Sénégal la ne lii benn benn moo si moo xaadam yooyu moo ma ko wax eh, mu ni ma moom amoon na benn rawaxaan boo xam ne su ko sukkaree ba mu ñëw lu mu ko wax rek sant ma daal koy def même bu ma ko ne yóbbu ma màkka léegi fu juróomi ma dem na dellu si waaye nag dama xuloo benn sëriñ mu dog rawaan bi waaye ki ma ko delloo Sénégal la dëkk lii benn sëriñ moo ko wax te moo tax Sénégal ñoom xamuñu sëriñ yi commencé nañ leen yam nag waaye yab sëriñ delloo ginnaaw senegaal te bu ñu bàyyiwu xas sëriñ si musiba yu rëy fi wàcc mm. yaree di ko gi nag dem na ba xàmmeetuñu sëriñ xàmmeetuñu nit yàlla ñu dara mhm. ku mu neex rek xas nit ci ci ci ci tere bi mhm. te loolu nag risque bu rëy a rëy rëy la te musiba du yem ci bopp boroom waaye nun de yàlla nañu yàlla dimbali ba nit yàlla yëpp ñu gëm leen ormal leen nag ñu gëm leen ormal leen te bañ a ba ñe bokk ci ñi nga xam ni xaste rek la nekk mhm. kon nag sa riif yal na la yàlla taxawoo njaboot gi ñoom ñëpp yal na leen yàlla defal fatulaayil akbar defal leen wërsëgu yaa wu lew wu noppale wu sax ak dee ci tëdd ci tariixa bi dee ci tariixa bi nag ci sa barke maam Seydi Ahmad Tijaani radiyallaahu taala am mboolem ñi mu jaboote ak waa tariixa bi yëpp maa ngi jottali ko ci ñoom yal na nu yàlla boole ci njabootu Seydi Ahmad Tijaani yi te bokk ci ñi nga xam ne nag Seydi Hajji Maalik moo di di jiite yomal xiyaam ak njabootam man de di rek laay ñaan di la sant itam bu baax nag te kóllëre gii de fas naa yéen du yàqoo ci man kóllëre gii du yàqoo ci sëriñ Mor mukk waaw te loolu it laay wax xele yi dama leen képp ngeen àndal bis bu yàqu na yàq ko jóge ci moom bu mu jóge ci yéen mukk ah, sëriñ duñ la téye ndax buñ ko toppee du du jeex du doy waaye li nga nettali dama ko nettali ay yoon at bi ma koy nettali moom. boobu la Aminatu mii juddu muy quatre-vingt-quinze ci la nga ma ko nettali woon nga ne ba ngay dugg ca rawdu ba naga puus béjjënam nga dugg te jox nañ la fa kaasu meew nga naan kon loola yàgg na fa tabaarakallaahu ba tey jii ñuy ànd te yàlla rekk tax muy kenn ci tarixa bi di xulaf kenn ci xalifa Cheikh Sidi Ahmad Tijaani yi te aw ma ci benn sikk min xulafaa u Cheikh Seydi Ahmad Tidiane loolu yàlla defal na ko ko te mënoo ko xam ci moom maa ngi koy wax léegi sama soxna bii nga xam ne Aminata moom xam na la waaye kii moom yaakaar naa yaa ngi koy door a gis tey ñoom ñaar ñoo fi nekk ñoo fi des faama moo génn àddina ah yàlla dogal moom bi ñuy ñëw laa ko wax nañ àndaale nga xamaale Serigne Mor Aminata moom xam nga ko beneen bi ci des nag moo di lii may defit nit du deñ di am kilifa ba sëriñ du génnee àddina muy Cheikhul Hadji Abdoul Aziz Dabakh 97 98 laa dem ci sëriñ ci Thierno Bachirou Mountaga Daha Cheikh Oumar ne ko ñaan si wuma wérd yees ndax ku sëriñ Abdou may tarixa bi doo ñaanaat doo yeeslu mu ne ma kon lu ma ne ko ñett yii laa ko waxoon ñaan siwuma tarixa bi ndax am naa ko Cheikh El Hadj Abdou Aziz sama ko jox yees luwuma ndax defuma lu tax ma yeeslu laaj siwuma addiya ndax maa ngi sant yàlla mu ne ma kon looy ut ma ne ko kilifa guy dund laa soxla te yow yaa ma ci doy kon kilifa guy dund laa la def mu ne ma ah, loolu de maa ngi ciy sant yàlla kon nañ ànd te yàlla tax lii may defit yëgal naa ko ko waaw ma ne ko lii may defit nii ci yow yëgal naa ko ko ndax boo amee kilifa fooy dem ak looy def danga ko koy yëgal mu ngi lay nuyu moom Thierno Bachirou di la ziyaare nee na di la bàyyi xel di la ñaanal yàlla mu ne yow it nanga koy ñaanal yàlla ndax yaakaar na sa ñaan li nga wax yépp nag njaboot gi dégg nañ ko sa njaboot lañ li ma waxoon laay baamu rek yaa leen tudd keroog ba sëriñ Babacar ma la génn juddee juddoo yàlla dogal ñu di ko tudd Baye Omar sàmb sëriñ Cheikh yebal ko mook siise Jinge maa ngi koy nettali samedi bi weesu siise Jinge ngi toog keroog ñëpp fa dajee daanaka ci ñi sant si ma ne leen yéenay sama sëriñ waaye tudd doom sëriñ moor laa ko wëllëranteel may leen ma rek mu tudd xale bi ñu tuddee ko sëriñ Babacar si keroog yaa ko tudd Baye Omar sàmb nee na bi ma demee maa ngi fekk sëriñ Cheikh di ma xaar ci saal bi mook Cissé Jinge Cissé mooy seede ndax li nga wax léegi rek àddina bi looy wax utal ko seede Cissé Jinge moom mu ngi fi waaye Baye Omar génn na àddina te Cissé Jinge Hadj Malick Cissé seede na ko samdi bi weesu mu ne bi ñu yeggee mu ñu ngi fekk Serigne Cheikh ci saal bi mu toog di leen xaar ndax tudd ma xam nga keroog dafa xaw a naaje Baye Omar toog fa di xaar ndawtal lu ko Serigne Cheikh joxoon pour mu jox ko aasi gannaaw ba mu ma joxee sama wàll ba pare ndax daf ma jox trois cent mille ne ma Serigne Cheikh nee na moo la ko jox da ngeen doon jamante jam nga ko trois cent mille yi ci des nag nee na naa ko teg ci loxol aasi ma ne ko ah, aasi daa dem ci seen salon yooyu di def seen eh, eh, defaru yi mu ne ma tee nga koo jox yaayam wala mu ne ma déedéet yow xamoo Serigne Cheikh Bot loxoog loxo la ma wax fala toog ba deux heures si door a ñëw mu door koo jox enveloppe ba ma gunge ko bi ma demee di ko ndokkee li ci ñëw bi keroog la ma wax mu ne ma keroog li ñuy naaje naaje maa ngi fekk Serigne Cheikh a ngi toog ci saal bi di ñu xaar nee na ma ñëw mu ne ma tudd ma nu mu demee kuñ ko tuddee ma ne ko sëriñ Serigne Babacar Sy la ko Chérif tuddee. mu ne ma ah, bettu woon mu ne ma mu ne nee na ko ku tudd doom ja mu ne ko si nag looloo ma jaaxal ndax daanaka kër sëñ du kenn desut ciyaawoon ña fa manqué ci si yéen bariwut waaye dafa ne yéenay samay sëriñ waaye ngeen may ma tudd doom sëriñ Mor laa ko wëllëre mu ne ko du nee naa leen shérif du nit loolu kan moo ko de ñemee def ci bii jamono mu ne sëriñ Cheikh a génne loolu ci gémmiñam moom Baye Omar Samb nettali ma ko ca ëllëg sa sëñ Baye Omar Samb woo ma téléphone ma dem mu ne ma sëriñ Cheikh nee na dafa bëggoon ndax danga bëgg ngeen gisante ma ne ko ne ko lépp loo gis ma di ko fi def wala ma di ko fi wax gisanteek moom taxul ne ko nañ dañ ci gise bi ba ëllëg fa gise dàqee ak fi ma koy gis moo dàq fuuf ma gisanteeg moom ne ko damay bañ sama pas-pas yàqu ndax mën naa ko gis mu jox ma xaalis mu yàq sama pas-pas kon si loolu la waxoon ci yow muy Serigne Cheikh Ahmad Tidiane si ah bi ci des mooy rakkam jii di Serigne Abdoul Aziz Al Amin ñëpp xam kook yow kon ñun daal suñu ko lëre wi ñu amoon ak yow ren di ñaar fukkeet ak juróom-benn ñu ngi koy féddali njaboot gi nag sa njaboot lañ loo def ci ñoom rek yeey na bi may mujjee nag keroog maa ngi koy wax ca conférence u Ayuba bi. am benn waay bu yëkkati benn kàddu ma ne ko ah, loolu de ci man lañ ko déggee ndax sëriñ moor Diop moo ma ko nettali ma ne ko nañ bàyyi nag maqaama jàmbur di ko jël ma ne ko bàyyam Serigne Aline Diop jubal ma ne ko moo magoon Seydul Haaji Malick magee na Maodo ñaar fukki ak juróom ànd ak Seydul Haaji Malick ba dem mu ànd ak Seydi Aboubacar si ma ne ko moom Serigne moor moo ma nettali ci gémmiñam ne baayam yeggoon na ci maqaama boo xam ne doomam bu judd mu jox la tariqa bi ma ne loolu nag maqaam la ku ko roy te yeggoo ca boobu maqaam nag loo gis yow la. sax ci kere bu ni ma sëy sëy Haaj Malick mag ñi ko toppoon ci ñi ràññee leen mat na juróomi téeméer. waaye am na ijaasa boo xam ne fukk ñeent la ko jox fukk ñeent yoon ak sa bi ci la mooy ci fukk ñeent yi waaw mun si Haaj Maalik moo ko tudd Aliou jubal te jubal boobu nag moom la yonent bi ni moo ko bi jaawee ci óor sóoratu óor ndax dafa jafe ndax eh, say cër musul benn musu ci mooy yàlla ndaw ak mag jafe na Euh, boobu euh, loolu ci istixaama bokk moo sëñ bu teg ci itam te loolu mi ngi ci bande bi sax bande yëpp ma indi ko moo ni sëñ Xaaj Maalik maag ñi mu fi fekk maag ñi mu fi fekk ndax sama maag ñi mu fekk ñaari cëpp marsa ba ci yàlla kenn ku mooy sëñ Aliou Diop bii loolu sëñ ma ko te ma koy wax ñëpp nga fa euh, ma ko nay alhamdulilah ndax fukki fukki yooyu ak ñeent Seydi Ahmad Tijaan itam bu muy génn àddina téeméeri junni ak fukk ak ñeent jël nañu tariixa bi te fukk ñeent la jox tari la jaaka boobu fukk ñeent la ko jox eh, eh, kon nag ñu ngi sant yàlla wax dëgg yàlla loolu itam man mii mu mujj judd ci ñoom waaye kenn ku ne bi mu ngéntee la jox tariixa bi jox la ijaasa loolu moom tey tey tey itam tey itam am na benn taalibeem fi mu dëkk ak fi mu dëkk war naa mat ñaari kilomètre wala ñett bi mu faatoo dañu ni ñu ko andil mooy maamu ñoom Assane Ndiaye ñoom ñii bi mu dikkee ñu suur ko jullee ko suur ko ba ca ginnaaw ëllëg sa mu julli ci tàkkusaan ñëw ñaa ah, sama taalibe bi de am na benn àq bu ñu koy topp bu ñu koy topp ñu seet seet kenn xamu ko ñu dem ca dëkk ba mu dem kenn xamu ko àq bi benn góor bu ñuy wax Baye Ngañ Jóob mag la wan moo jógee ca dëkk ba di ko ni ko Jóob euh, lii nga wax yàlla donga la ko mën a ma xamal ndax man waxuma ko moom mi ma ko seqal waxu ko te ñun ñaar doo nga yëg te yow yaa ngi woon fii lu la ko xamal mu ni ko lii nga wax nag dëgg la waaye moo di dañoo bi nawet bi jeexee dañoo dama am benn toolu ñebbe teelu toolu sëb ñu witt ko yépp dajale ko ay nagam dikk lekk lépp ba mu ko yëgee nag moo woo ma nu ànd du ñun ñaar dem ba ca tool ba mu ne ma lii nag duma la ko baalu doo ma ko baal itam dama la koy fay ndax yow dangay ngay béy man damay béy di sàmm kon nag bu ko lekkee te ma am lu ma dunde du ma la bàyyi nga ba yow loo dunde ba mu fa jógee nag mu daal di feebar feebar gaaw moom góor gi faatu di jotuñu koo xayma jotu koo fay loolu sa kii sa sëriñ bi ko xam te fekkewu ko hmm. dëgg na loolu ay may wax ma ma ne na gaay